na nga muñ da nga xam ni yàlla lu mu digle dana ko joxe waaye ñi wóoluwul seen bopp sax waxuma la di wóolu yàlla bul fexe ba ñu déstabiliser la waaw fasbir inna waad allahi xaq wala yastaxifannaka alladina la yuqinuun waaw mu kallaf ku wóoluwul yàlla wóoluwul boppam waru ko déstabiliser ndax ci ñàkk fayda la bokk tabarkal tabarkal la ci ñàkk fayda la bokk boo xasee wóolu rekk nga wóolu te ku wóolu du déstabiliser kenn waaye boo wóoluwul ñaare ci jéem a déstabiliser nit ñi rekk ngay nekk te boobu nag doxul fasbir إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون نيومي تم جبان كي يوننتي بي نيو ورا مل مل نيوكو واو جبان كي يوننتي بي نيو ورا مل مل نيوكو نخ يوننتي بي دفو وسيدنا عمر مو نيو نيكو دما لا يوني واخكو يوننتي بي منكو بما كو دوخي يقكو mu ne ko lu tax mu ne ko dama ëpp mu ne ko waaye boo ko yónnee Ousmane dana ko dox na mu la gënale nga am résultat na mu la gënale ndax ëppul ëppul man dama ëpp dama naqati moom nag ku tey la ko xam siyaasa la boo ko yónnee di nga am résultat bu positif foofu la mbaax yem ba tax na kon lenn lu ci ne nañ ko jox rek ka ko mën waaw ndax wolof nee na fas doo ko jox sa xarit xaritam nga ko jox waaw fas nga ko jox sa xarit mukk ndax bu mënul fas rey ko waaye xaritu fas ngay jox fas waaw moom dana ko toppatoo loolu nag ku ko def rek ah di nga mujj sant sa boroom lu ne nga seet fu mu war a tegu rekk nga teg ko fa dara nekku ci la tabarkal la yal na nu ci yàlla saxal te yàlla dëgëral leen te itam rekk lu ne ngeen bañ ko di précipité waaw lu ne ngeen seet rek na ngeen ko doxale bañ ko précipité li yàqu yépp précipitation moo ko yàq waaw yàlla xam na ko li yàqu yépp précipitation moo ko yàq ah te yàlla dafa mel ni ku gis ni muy tërale daa xam ni moom du précipité dara waaw du précipité dara ndànk rek ndànk rek lu ne nga teg ko fa mu war a teg ñaan yàlla mu nangu ko lu ne nga teg ko fu mu war a tegu ñaan yàlla mu nangu ko tubarkalla yal na ko yàlla def bu ko defee rek ñu bàyyi xel ca la ibnu adham wax ñaare kër gu ñu jëwe wëli yu raafa ca mujj waaw bàyyi ci xel rek du ma ta bàyyi xel kër bu ñoo jëwe wëli yu raafa ca mujj waaw bàyyi ci xel te wax naa leen bi fi waa màkka bewee ni yàlla def lakk màkk lakk ma dina boole ci ah loolu kay amul amul kéemaan ndax innama ana basharu mislukum qul innama ana basharu mislukum yonent bee gën kaaba gi moo gën it rawdu ba mu tëdd te daan na biru loolu nag la tudd daan na feebar loolu naka la tudd wax la ni yàlla rek yoonam waaw sëriñ Muniru daf daan wax ne luy dal doomu aadama dana dal jamono waaw nee na yow nag yaay seet loo koy faje waaw waaye luy dal doomu aadama dana dal jamono yow nag yaay seet loo koy faje tabarkalla tabarkalla waaye pëtëm pëtëm yi wolof daal mag ñemewuñu ko woon yàlla xam na ko naa bàyyi ci xel rek bàyyi ci xel rek mag ñi dañ daan digle lu baax rek digle lu baax lu baax rek moom lañ daan def xaj maxtar njaay ngaari bu ndar nee ma sama baay benn taalibeem daf ko indil fasu naar góor bu rafet nee na ndar yépp topp ci nee na ba ñu agsi ci buntu kër gi nee na ñu ne ah góor gi de bi yoon xanaa dana génn xool fasam wi waaye taxul mu génn ki ko indi ñëw ni ko gor gi indil naa la fas bu rafet ni ko jërëjëf waaye baal naa la ko ni ko lu tax mu ni ko dama jangale daara te mënuma ci boole yar fas bu amé won jikko wolof rek fofu la ñuy taxali ko mu dem ba ja marché ba jaay faso jël xaalis ba tak ci mouchoir indi ba ci kanamu góor gi mu ne ko kon nag nga dimbali ci xale yi ci seen wàllu lekk góor gi ni ko waaw ah, non noonu la nu ma boole jàngal doomi jàmbur yi ba noppi di di leen sàmmloo fas mënuma ko ba tax na mag ñi ku leen roy doo juum mukk ku leen roy doo juum nag nu di leen bàyyi xel te yooyu ñu bañ koy xeeb waaw ñu ko bañ xeeb loo ci appliqué rek gis njëriñam waaye loo ci appliqué wulit du am benn njëriñ tabarakallahu tabarakallahu ah ñu jàng fatiha bu sel ñu jàng ñetti salaatu ala nabi ñu yéene ko yonent bi sallallahu alayhi wa ñu dugal ci sunu soxla yépp soxla yaram ak soxla biir kër ak soxla place ak soxla tukkeet yépp ñu dugal ko ci te itam nu ngee ñaanal sunu bokki sécurité yi taxaw yal na yàlla di seen sécurité ñoom ndax bokk nañu ko ci njëlbeen ba nëgëni te loolu rafet na di leen yóbbante ci seen kilifa yi ñu ñaanal lan leen yàlla yàlla nekk seen sécurité ñoom itam la yàlla defar yépp yàlla bu yàlla yàq dara yàlla yàlla defar yépp yàlla bu yàlla yàq dara yàlla yàlla defar yépp yàlla bu yàlla yàq dara tabarakallahu पर्यप्त वार्तालाप قاعد تحكي camarada. ولا Camara Fata Camara moom son noom Gourssoum ñooy liggéeyandoo aussi affaire lay Papa Cheikh vraiment رحيما وصلى الله على اشرف الجنس البشري سيدنا محمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا الله ما عهدوا عليه ورضي الله عن المؤمنين في كل بقاع الارض ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp jiital ci sang yu tedd yi sang yu góor yi ak sang yu jigéen yi jiital itam sunu gan yu tedd yi ñu fi am te jóge ci kër gori diineyi tabaraka llahu li ko dale biik ba léegi ñu ñëw def teway bu rafet mu mel ni ci bisu tey bi itam ñu nge rafet lu teewayu sunu mbokk cheikh ahmed tijane tall bu góor gi cheikh muntaka daha tal di rafet lu teewaayu sunu mbokk السيد الحاج مالك محسن جوب تبارك الله لكليفة جي وقتاني بيك ba noppi résumé ne yépp ci alquran fa tabarakallah di nuyu itam sunu way juru bopp sëriñ Jibril Combaan di nuyu itam sunu wëllëre bopp di góor gi Abdu Buso Ja jóge ca njar di nuyu itam sunu wala bopp di muqaddamu sayid cheikh ca Guinée Bissau mu di cheikh Ahmed Tijane Diop mu mel ni tabarakallahu soxna na fi mbay dëgg yàlla tey mooy yaayu njaboot gi mu ngi toog ànd ak ki njaboot yi boppam yépp fa tabarak ومني سرين حبيب اك شيخ الحاج مالك عندك سين مغو دارا محمد منصور اك سين جابوت سي بوب يي ньо اندال ньоك ньоم تنجال بين بفي فتبارك الله بايو دايري يايو دايري responsable yep. يب superviseurs yi fa tabarakallahu ñiy yore cellules yi ah kenn ku ne fa tabarakallahu def nga ba def lu mënul ndax yàlla yëg ni amuloo lu dul lenn mooy jullit nga te jullit amul lu ëpp yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel ni itam li fi am biig dinañu laaj sax ni ndax dina jàddooti nit di bi gémmiñ di wax بارك الله نيكم مومال سين بوب باب سولي كان موغي توك سيرين كان موغي في نيكون اك نون مام عبد الحميد موغي ني توك تبارك الله waye ku دك لولي won بيك du jaadooti sax nga dégloo ci leneen ndaxit it ñett rekk a am kàddu jaamur xam-xamu jaamur ak cëru jaamur cëru jaamur ñett yépp yàlla sédd na leen yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa kàddu ga lu mu ca war a wax wax na ko xam-xam ba lu mu ca war a jàngale jàngale na ko cër ba kum ca war a yóbbaale yóbbaale na la mu mel ni bi fi jógee ba léegi nag loolu masul dog am ñu di ñu koy donn mu mel ni ñi ko donn ñépp ci jamono nag kenn ëpp ci ki toogoon fii biig ah. muy Seyyid Cheikh Ahmed yi am naa yërëm nit ñi moo tax sax mu yéeg ba ci yàgg mu wàccaat demoon na ba noppi parce que itam nag yu bokkul bokkul waaw ay li wolof di wax ne am na yu nga xam ni du xam ngañ ba sa suub la waaw lii ñam yooyu mu tudd waaw ah. ligne yi nga xam ni ligne directe beeg ligne standard beeg ak ba kenn branché ba boroom ñëw ñu soog ko branché pour ndokkeel ruuxu boroom ah loolu nekkul ci téere de waaw أخذتم علمكم عن علماء الرسوم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ومن يزيد المصطم مكوخن am na ñoo xam ne bu ñu àddoo nga xam ni fa ñuy du fii ah te it léegi la wàññi doosam sax ndax boobu ñi ñu naw ñépp dañu daan toog mu wax lu mu la wóor ni assistance assistance bi ñu ko ci xam barewul ndegam am na ndaxit cëram la ah ngeen gisee biig ma laaj ko ci biir sursam yooyu le li ñoo tudde ruuxul idraak ñu di ko tudde sens de la perception li ñoo tudde ruuxu taadul ñu di ko tudde sens de l'équilibre li ñoo tudde ruuxu taqdir ñu di ko tudde sens de mesure ba mu ko waxee léegi ci fukki at ak juróom la toll Ah, ba mu koy wax boobu ñi sant si ñépp ñu ngi toog ونجا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أحوج شيء إلى التعادل إلى معرفة بتجريد إلى علم بتواضع إلى سمو بتفكر الى غنى بمروءة الى دنيا باخرة ونيانا بي صلى الله عليه وسلم بمو ينيو ودفا فك نيت جخاسو تا امنا ريسبونسابيلتي بوغا خامني كونيو كو دنك بو دالول amuloo équilibre responsabilité bi du dem fu sore mu ni waaye équilibre bi itam dafa am yuñ koo xàmmee bokk na ci yuñu koy xàmmee maarifatun bi tajrid xàmmee bu nga xam ni lañu koy mën a seede mooy boroom dana rafleel boppam ci xumb xumb waaw am na loo xam ni ku ko xam dootoo mën xumb waaw bokk na ci itam ilmun bi tawaddo xam lu kenn xamul te doo dox ba mu feeñ ci yow waaw kooku mën nañ ko gëm ci moom ba ca des itam mooy suma woon bi tafakkur li mu wax fii ci nekk doomu dammeel ak nekk doomu buur am na ñu nga xam ni la tax nit ñi fonk leen waaye seen xalaat dafa suufewul te ku sa xalaat suufewul fokk nga yéeg waaw ah. moo tax nag seen màggaay du màggaayu deret ah. ba ca des mooy rinan bi muru a xamuloo ni am na yenn richesse yi du richesse ndax bu fekkee ni richesse ba lu ñu ko xam ci nit mu génnee billet de banque booba du richesse mooy li mu wax ni bu fekkee ni dangay toog bi nit ki yalwaan si ñu soog a xam ni am nga walla mën nga booba tardé na waaw ah, dañu togg ak benn soxna bu tedd ci kër gi wax ñu ko fan yële mu ni moom di kër goo fi dem di nga gis ju fay rang ba mu des bu Cheikh Tidiane ndax bala nga ko rang mu fekk la fa nga ne waaw kay waaw moo tax bu ñu doo tiitaroo ci jamono nanaa ñoo nga rang kër diw nee na man li na am na ku soxlawul ku ko rang نمبر لنقول رنج مفكلا فنعني تبارك الله تقول غنم بمرؤة نيسان مفيرك فايدة ولا نك فايدة برام نك فايدة آه وخين لا دفاي خوفيري لمو نتلي وانشي إمام جنيد آه يجب نبي والبتكون نكات دونغو loolu rek la ci bëgg a wax waaw mu mel ni itam ba leen mujje mooy ila duniyam bi axira àdduna jooy soppi njëkk mu jënd àllaaxira moo tax ma di ko ko laaj ni ko sa gàmmu daaw dama gis lu ma jaaxal tuuti ma ne ko dama la gis nga toog te di màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ma ni ko te bi nga koy màggal ñu ni juddoom lañuy ñuy màggal booba bàmmeel baa ngi ci sa gannaaw ma jaaxle nag ku ñuy màggal juddoom te te bàmmeelam a ngi ci sa gannaaw bu daw ba la du bii ah, mooy bi ñu def fii mu ni ma yonent bay wane ni rekk fexe na ba diggante àdduna ak àllaaxira frontière amatu fi léegi circulation libre la waaw mu mel ni nag boobu rek moo ci mat a xel ah. ay dafa mel ni yi mu jàngale biig lu ñuy jëlaat la def ko partie par partie seet nu ñu ko jàngaate xëy na am na ci dimension bu nga xam ni sax bosam la dafa bëgg njaboot yi seen xel dal ci ñu xam ni la woon ca mag ña mu ngi foofu ci moom waaw mu leen tudd yépp ci turandoom ci alkibritul ahmar waaw wal abar moom lay wax ci yonent bi ñaari baat yu yu doy yu mu boole xatmiye boobu mu sédd ci cheikh cheikh garde bosom ci cadre wilaya moom yonent bi mu garde bosom ci cadre nubuwa xatmiye boobu ci wàllu jawhar ak tatmim bi risaalam yenu bu'istu li utammima mu mel ni mooy li kilifa gi doon junju rekk ndax yàlla ci alquran yi ñu tudd yépp comme ni mu ko waxee mu di ay cadre nit man ca dugg pour man jege boroomam cadre yi bare na waaye itam yàlla ci alquran cadre bu ne nga dugg ca pour jegeñ yàlla dafa am lu ko ëpp mooy nga am kilifa goo xam ni boo réeroowul ak moom fekk yaa ngi topp ci gannaawam fu mu yegg nga yegg fa tax bi ñoo tudd sunna la nee ku def ku def nangam ci sunna jégg ko dina la yomb ku def farata تد غي ادنا بو الاخره دينا لا يومب واو كو ديف نوافل الخيرات جوفيلو يالا دينا لا يومب يالا ني يوي ييب دافا سوري واخ يوننتي بي نيكو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني رك مو غن غات واو cadre bu ne nga dugg ci te xamoo mu demee demal ca ju dénk cadre ya nga jox ko sa bopp waaw looloo tax nag wàllu xatmiya ci wàllu nubuwa dafa am ñu ci def benn genre critique da defoon ni yàlla bu xasee ba def xatmiya ci wàllu nubuwa ak ci wàllu risala dootul war a jaadooti nit di weddi waaye fekk na ah xanaa xatmiya kay yàlla ko ëpp doole moom mi bind te teewul mu bind ba noppi te ñi mu bind am ñu ko ci nanguwul looy tax pour nga mën ko dégg foog nga dellu ci bu'istu li utammima makarim al axlaaq yonent bi ni sallallahu alayhi wa sallam sama xat mi yooyu yëpp ak la ca yàlla def yëpp mu di mayam benn préoccupation rekk laa am moo di ma fexe ba jikko bañ doyat yi comme mottali jikko moo ko tax jóg ku ko wàññil rekk tooñ ko ku ko wàññil tooñ ko mais jikko bi aussi comme ni mu ko waxe te comme ni mu ci annaxt sculpture dañ koy façonné rekk ba mu mel ni ñu bëgg mais ki koy def sax ak li xam-xam bi lim koy maîtriser maîtriser am na discipline bu muy suivre moo tax li mu wax ni yàlla yi xew yëpp ak yi yëngu yëpp li ko ci yitteel mooy teggin bi moo tax moom ci boppam mu ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi moo lay xamal ni du ku yar nit rekk wàcc du ku yar nit rekk wàcc ndax baatu fa ahsana fa ahsanay tax nga wàcc nga ku pare ci nit te kenn jéppiwu ko sañ nga ni may kilifaam waaye boo yaree nit ba noppi te tanewul kenn nag xamal ni yow ma ko yar ca daara ja nga war dellu moo tax baatu ëdëb bi mu tudd moom lañu leen daan wax ci ëdëbul xidma a'azzu min alxidmati nafsiha danaa ko wax sama mbokku pas-pas léeg mu ni ma bu ma ñëwee ci kër gi fekk fi ñi nekk ci kër gi dama leen di ñee ndax bu ma sañoon lii ñu am maam ko ma ni ko bala nga leen di ñee nag foog nga xam lu leen fi bay bàyyi puisque itam kër gu mag këru nitu yàlla ñaara faam tarbiya ak service du benn waaye nag service bi itam bu ñu orienté boroom mën na dem ba yéegal ko ca tarbiya ba te du ko yëg di bale kër gi di way fomp meuble yi di way dawal oto bi di way togg añ bi di way fóot póot mi yooyu yëpp mën na nekk service waaye nag yéene boroom dina yegg ci sell ba mu génn ci cadre xidma dem ci cadre tarbiya waaw ah. ma taxoon nag ma ni ñeete bi amu ci solo ndax xam nga li sa yit wax biig ci wàllu sayidna abazar li ko yàlla nattoo woon muy dogale nit ñi ba yàlla nattoo ko mu rey liir ba coono ba mu ca am mënatul nelaw ndax fu mu tëdd mu mel ni dafa dégg baatu liir bi ak bu mu ko bëggee tuub yoon wa ñu ko jaarale biñ ko yóbboo ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak charte ba ñu ko wax te mooy mu dellu ca dëkkam fexé beaucoup gëmul won l'islam, mo fexé ba nga dugg ci bir l'islam té ñu jox ko garantie yonent bi pour que ba kérok muy def lolu yalla du fi jël bakkanam fofu rek mo am solo xam nga jamono bu ne dangay xam li jamono bi laaj bu jëkkoon nit li mu daan yéene mooy jël njaboot bu bokk ci moom yóbbu kër kilifaam waaye seetlu ngeen ni léegi njaboot boo yóbbu ci kër kilifa mu yàqoo fa muy ëpp mu defaroo fa

nekkatul ci mu defar këram rekk pour ku bëgg a defaru ñëw fa responsabilité mu ngi ci mu defar kër yépp ba ku ne foo yeewoo war faa mën a jële la nga daan jële ci kër kilifa ko لالي تخ ينفي لموسى كروك بمو يرمي إبليس في كادر بوبو لدوغو دي dafay laaj dégg keroog bi mu yërëmee iblis ndax génne gi ko yàlla génne ba mu ni dafay dem ci boroomam pour tinul ko bi mu ñëwee ci sunu boroom moom yonent yàlla Muusa def ni yàlla xajoo nga lu ne yàlla ni ko xajoo lu ne du tax ku yiw bàyyi ku yiwa di mu tas këram c'est tellement important yàlla xajoo nga lu ne xam nga ko xajoo lu ne mooy al aziz yàlla ni ko xajoolu ne du tax ku yiw bàyyi ku yiwadi mu tas këram mu ni ko te bu ma pardonné ibliis ci loolu dama dul xam ndax foofu lay yem walla dina jàll foofu لولو تخ نيت ني باتو بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء غربه بوبله daf di ñaari dimension yu bokkul gurba bi dellu ci wàllu jawhar ak gurba bi dellu ci wàllu ard xam nga bu dee xurba bi dellu ci wàllu jawhar moo daloon Maodo ko am ñëpp te ñi nga am ñëpp di leen ñee te soxlaatoo fee toog ñu ni lu tax mu ne ànd amatu fi loo tax mu dagg dundam parce que xurba ba daf di xurba gaaya dugg ci jawhar mais du xurbatul masir mais nag sëriñ Babacar moo ko ci ëpp chance ndax moom jawhar bi daf ko faf soppi siyaasa raaynaaka min xusni siyaasati baasiman maa annaasi محمود السجايا وهم هم وامن نكون خامني دنا خامني موامل افير خامين كونغا خامني كو واخ رك تدوم تا دو مانا فخي با جيلي انديكو فيغا ني xamuloo nit ñi yàqule ñépp mooy bàyyee seen bopp nit ñi ba ñu jëlee leen fa ñu ne indi leen fi ñu ne waaw dafay am xam nga moo tax baatu source bi mu wax mas naa ko dégg bis mu ni Moustapha li yées ci àdduna mooy am teen ci sa kër ba noppi te dëkke mar waaw am itam mar naan ak xam lu ndox di jariñ mbokkul waaw mar rekk naan ak xam lu ndox di jariñ bokkul looluy tax xam nga li mbokku bindikatu Suisse boobu waxoon

nit yi ko séq pour mu man leen rëcc ba folie du am ci moom yoon dafa yombul da moom la leen seen góor gi doon wax ci ki porte plainte bi ki wara atte te moy an nafs ak ash shaytan al khasm ak al hakam ni bu fekke ni nek procureur amul fofu moo tax mu indi len baatu xikma parce que fi ci Sénégal surtout ñi jànge diine ci cadre fiqhu moo ëpp te limu wax ni ki jàngul lu dul fiqh bu amul boroom xikma comme maître ci kàmb la jëm waaye itam ki amee xikma bu amul borom maarifa comme maître moom it bu watuwul ci kàmb la jëm looloo taxoon imaamu Malik na ci baatu source dañu ko gis bi mu taalif Muwatta ñi ñu gënoon a miin ñuy nettali ci yonent bi siitewul ci kenn ni ko lu tax siitewoo diw ak diw ak diw ak diw di ko limal mu ni mën naa leen limal li ko tàmbalee ci juróom ñaar fukk ba téeméer ci ñi ngeen miinoon ñu naan qaala rasulullah te amu ci kenn kenn ku ma ku ma jaral ma yàq suma bëccëg waaw parce que qaala rasul yomb na mais ñu préparé la ba li lay jariñ sa nopp bii rek du ko dégg mooy li mu leen junj ci wataayaha udunun waaya mooy li mu leen ni bët sax bu demee ba amatul bu boobaa nopp yàlla fal ko lu bët daan jariñ bu boobaa nopp moo fay féete moo tax dina bari ku la ma nettali lu bari lu kilifa wax mais li lay jaaxal mooy doo gis lu mu ca tabax ci dundam moo tax nag këru nitu yàlla yi ak daara yu mag yi façon boobu mu ko junje biig ni kër ak lu mu rëy rëy bu dee waliyu yi fa lañ leen di jëwe bu yàggee kër ga dana gent xamuloo fa tilka buyutuhum xaawiyatum bi ma zalamu ak li mu wax ni màbb pas-pas ba noppi tabax jàkk C'est tellement important. pour voir la ne awlawiyaat yi dafay am solo looloo tax yàlla def na ci yi mu tere la nit ci li ñoo tudde azina mu def ci ñetti daraja yu bokkul ku yàlla terale taaru yaram am na waaw moo tax jaala lakum libaasan yuwaari sawaatikum warishan boobu am na am na ku mu terale teraanga pénc bu xew amee ñu dem ca moom ñu ko abal ñu sa kër ndax këram lu ne mënees na ko fa def bu dara xewee ñu nu ko abal ñu sa oto ndax am na kàttan gu mu mën a joxe lu ñu mën a doxe